jumaa ju mag ji ci Touba nekk na benn ci barabu jullikaay yi nga xam ni ñoo njëkk a am fii ci Sénégal li ñuy wax ab régie di jumtukaay boo xam ni mooy tax ba événement yi fi xew ñu mun ko jàllale di ko jaarale ci tele yi wala ci xarale yi yees yi mu nekk nag ab xarale boo xamante ni si ab njariñam kenn dootu ko laam-laame. régie nag buñ ko waxee day composé wu ci ay ci ci anam yu xaw a bari. muy dafa laaj ay caméra yu xaw a bari laaj tamit ay docudeur yoo xam ne fi la image yi dajaloo ngir euh, sëriñ bi nga xam ne mooy réaliser mën koo defar euh, ngir nit ñi mën koo seetaan ci anam goo xam ne dana gën a euh, mucc ayib moo xam télévision la boo xam ne dafay ñëw moo xam site la boo xam ne dafay ñëw. régie bi ak banqaas yu mu àndal danañ fi liggéey lu ëpp tuuti fukki nit. di fukki nit yoo xamante ni si régie jumaa ji képp si la ñuy liggéey. loolu nag xam nga ñëpp bu ñëwandoo duñ duñ mën a euh, kenn ku ne indi sa appareil wala kenn ku ne indi say bagage ngir bëgg def direct wala kenn ku ne indi sa say jumtukaay. Euh, ci barab bi xam nga loolu boobaa day nekk loo xam ne day day désordre wu Euh, loolu ci la Muxaddamatul Xidma xalaat xalaat ne war naa am benn euh, risi boo xam ne dana tax bépp organe bu ñëwati rek dañ lay orienté fii di ab liggéey boo xam ni dana yombal dëkkandiku gi ak li ñuy wax retransmission événement yu mag yi nga xam ni dañuy am fii ci dëkk bu sell bi lu mel ni màggal gu mag gi julli ajuma ju ne wala sax yenn activité yoo xam ni danañ fi am ci biir weeru koor gi bu njëkk julli gi da nga daa gis ab cameraman nekk ca kanamu sëñ bi wala ay cameraman nekk ci biir salle bi eh, nit ñi di sëgg ko siggi ñu taxaw na jon di film léegi nag eh, ngir récit récit bi loolu saar boobu lay jariñ xam na léegi doo gisati kuy taxaw di di di di film caméra yi am na caméra xam ne ay robot lay doon eh, ñoo jël sëgg yi ak sigg yi ak fi sëñ bi nekk bu ci bitti gi ñu fixé yenn caméra yi mu jël yenn yenn entrant yi. noonu ñu mën a jàpp ni jumaa ju mag ji nekk fii ci Touba mu ngi wéy di gën a dëppoo ak jamono. jëm rek ci li nga xamante ni si jamono daf cee toll rawatina ci li nga xam ni dafa laale ak xarala yu yees yi. ci wàllum tas xibaar ak wàllum jokkoo.